yéen a kaay gi nee na maam Thierno Birahima mooy doomu maam Mor Anta Sali waajuram wu jigéen di soxna Faati Isa Diop yéen a kaay gi nee na Serigne Touba Khadim Rasoul maanaam moo ko formé ci lu bare bare Serigne Touba daal koy dénkoon yoon we keroog ba nga xam ne moom lay dem ci ba yéen a kaay gi di Vox Populi nee la màggalu borom daaru gi yéen a kaay gi di Le Quotidien xëy wax ci boo muy tuule nag kiris bi nga xam ne moo nar a am ci réewum Sénégal rawatina ci lu jëm ci wàllum koom bi ndax li ne moom la ñu nemee ko mooy bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara détaillé bëri na ay yoo xam ne ci réew mi dañoo am ay jafe-jafe journal bi na jafe yi nga xam ne réewum Sénégal mu ngi koy dund fu ko waay natt daana koy passé te jafe-jafe yi nag crise bi nga xam ne moo am ca diwaanu Mali ak ni nga xam ne moom la ñuy embargo Mali loolee bokk na ci tax Sénégal am ay jafe-jafe rawatina fi jëm ci wàllum port bi maanaam crise malienne bi Sénégal le grand perdant yéen a kaay gi di leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu waa Forum Civil ñoom nag daat nañuy woo Ahmed Aïdara maire bu ville bu Guédiawaye ngir nag mu def li nga xam ne mooy déclaration patrimoine maanaam wax alalam nan la tolloo yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu mafia trafic moo am diggante Sénégal ak Mauritanie ñi nga xam ne nag ñooy waa section de recherche daan nañuy teg loxo ñenn ci ñi nga ne ñoo nekkoon réseau boobee maanaam di trafic ay arme diggante Sénégal ak Mauritanie yéen a kaay gi ne xam ne ñoom la ñu teg loxo lu toll si juróom benn pistolet automatique yoo xam nga xam ne fi la ñuy dal ci Ndakaaru a kaay na ñooñu nga xam ne nag ñooy réseau bi doon def wàllum trafic arme boobee nag seeni fournisseur danañu leen traqué jamono ji sax ñoo ngi leen di traqué diggante Touba ak Dakar yéen a kaay gi di 24 heures xëy xibaar naan ñi nga xam ne ñooy waa société civile bi ñoom nag ñaar fekk fan ak dana ñu wàcc si mbedd yi ngir nag amal li nga xam ne mooy ay doxi ñaxto ngir nag ñaawlu li nga xam ne moo jëm ci wàllu parrainage bi yéen a kaay na lu toll si juróom-ñaar ci mouvement xam ne 23 mars danañu wàcc ci mbedd mi daal di mars yéen gi de Les Échos nee na waa wàllu Sénégal ni ki démb ca diwaanu Pikine dañu doon mars docteur Cheikh Dieng ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tegoon nañ leen loxo daal leen di bàyyi wàllu Sénégal ba léegi ñoom dañoo jàpp ne ville bu Pikine ñoom ñoo ko gañee te gars yi dañu ko bëgg a sàcc yéen a kaay gi di Walf Fadjri lu jëm ci wàllum parrainage bi am na ñoo xam ne attaqué na net décision Antoine Diome boobee ca kanamu Cour suprême yéen a kaay a nee na nag njiitu réew mi di Macky Sall ginnaaw dafa am nag ay missionnaire yoo xamante ni da leen a ci ay gox-goxaana ki nga xam ne nag mooy Mamadou Talla moom la yebaloon ca diiwaanu Linguère Linguère googe nag Aly Ngouille ak Samba Ka ñoom ñaar daawuñu jaaroo ab taala Mamadou Talla jubóole na leen a yéen a kaay gi di Walf ak Sud Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu forum mondial a kaay gi nee na acte de la guerre jàppante bi commencé xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum xeex dawal jakarta ci ndakaaru di jéem a def transport journal bi nee na lu toll si junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ñaari jakarta yoo xam ne teg nañu leen loxo maanaam 1692 jakarta yéene kaay gi de l'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu sakk Casamance sa noor Sindia foofe nag lu ëpp nag ñetti téeméer ci ay daw làqu yoo xam ne l'Observateur daje na ak ñoom kenn ku nekk di nettali jafe-jafe yi nga xam ne moom la dund am na si koo xam ne nee na ab roplaan moo tiim dëkk maanaam di fa sànni ay bombo yéene na lu ëpp fukki ci école xam ne tëj nañu ko yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy séq waxtaanu yaatu ak Omar Sane mi nga xam ne turam dëgg Omar la daan nay wax ni nga xam ne moom la duggee ci lu jëm ci wàllu musique nee na fami musique ci la yaroo wax na nag ne lii nga xam ne mooy reggae maanaam ci ay nijaayam la ko daal di jàngee nee na nag moom dafa yàgg bëgg lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ara def na nag ay compilation nationaux ak internationaux yu bare bare participé na ci album yu bare bare rawatina album Youssou Ndour daan nay wax ne créé na li nga xam ne mooy labelu boppam ci atum 2005 wax na tamit ne lii nga xam ne mooy reggae